téléspectateurs de la EDB TV international am mbégte jàkkaarloo euh, liggéey bi nga xam ne nii moom la ñuy liggéey tey nag am nañ mbégte bu baax euh, jàkkaarloo yéen fi nga xam ne nii ci restaurant bu mag bi nga xam ne nii euh, tey ñu ànd ceeg le grand manager le grand producteur uti boole si muy Tafa Dabo ànd ñi nga xam ne mooy EDB TV international ci li nga xam ne moom mooy EDB production tey ñu ànd ak yéen jàkkaarloog suñu jigéen suñu xarit muy Kani Faye di doomu El Hadj di setu ki nga xam xam ne nii moom mooy suñu maam euh, Ndiaga Mbaye mm. kon kooku li mu ko waxee sànq signature bi rek bu woyee daa war a woy bu woyul daa war a woy kani tey ana la lan nga lan nga yëg ci li nga xam ne ni moom mooy signature contrat bi nga xam ne moom nga def ak EDB production waaw li ma yëg mooy kontaan rek kontaan parce que nit ku ci nekk lool ngay ñaan euh, dem ba nga xamante li ngay def euh, moom danga nga ciy signé contrat ak sa producteur ngeen liggéey liggéey bu mucc ci ayeb parce que dañuy ñaan yàlla rek suñu borom ku ci nekk yàlla déggoo suñu diggante <laughs> mhm. yóbbu ñu foo xamante ne ni day kawe suñu njort mhm. ba liggéey bi ñu koy dégg partout dans le monde mhm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mais mbégte laa ci am ak kontaante parce que metti woon na torop mën naa ni ñuy jugal suñu bopp man ak sama manager dafa Daabo sama yaay sama papa ba yàlla def tey jii macha allah ñu taxaw di signer contrat ak producteur bu war a taxaw jàppale Kani waa EDB TV kon loolu yaakaar naa ni mbekté la bu maga mak ci man bëggoon na xam aussi laata ngay laata ngay signé ki nga xam moy EDB production mhm. euh, jamono yoy avant avant loolu ci yan yan yan circonstance nga nekkoon ak euh, manam ci liggéey bi naka la doon doxé wa limu expliquer légui rek metti won na wax dëgg yalla mhm. parce que man sama manager Tafa ño doon and di jugga ka daan mhm. donc lepp lu ñu xam ne lii mën na kan ñu nekk ci ci lool lañ nekkoon di def suñu affaire di génné suñu son def suñu clip lepp ñun ñokoy koy defal suñu bop tey nag yàlla def ba nga xamante ne boole nañu waa EDB ñu war ñoo defal production bi kon loolu ñu dañ ciy kontaan parce que dugal sa bopp ku ne xam na ne artiste dafa metti mm. surtout maa nga nekk jeune mm. nekk xale ba pare mm. nekk jigéen soo amul ñu nekk sa ginnaaw rek da ngay gaaw a sànku wala tamit leneen mën na ci am ak leneen kon boo xamante ne am na kilifa yoo xam ne ñi ngi ci sa ginnaaw ñu dëgg ñoo xamante ne dañu responsable euh, fas yéene laa jàppale ànd ak yow ci sa carrière hmm. loolu dañ ciy sant yàlla ci kontaan. mu ngi noonu yow laata ngay xamante ki nga xam mooy Tafa Dabo mu lay manager euh, lan nga doon daj lan nga doon daj parce que comme on dit rek euh, artiste bu jigéen moom ci biir ci milieu bi. Hmm. dafay a compliqué mais yow avant ngay xamante ki nga xam ne mooy Tafa. Euh, lan lan lan nga doon dund quoi yow. li ma la wax rek ñuy jóge ko daanu man ak sama papa ak sama yaay rek. Hmm, donc sama papa njëkkoon maa defal son bu ñu naan nijaay nijaay. yàlla def moom moo ko defoon. Mm-hmm. Euh, sama tonton tam maa ngi koy gërëm Pape nga njaay bu baax a baax. bi ñu demee tegal ko son bi mu fay clip bi wax dëgg yàlla jàpp ci bu baax parce que liñ naan. bu la nit defalee dara boo ko waxul rek bii lim ay noonam na la ci boole mm-hmm. donc moom tam ñu koy ñaanal yàlla di ko kontaan naa si moom bu baax mm-hmm. sama yaay tam di juga ko daanu comme li may wax léegi nii teggi ay nattam ah, pour jàppale doomam li ma wax sànq ne yaay bu liggéeyee doom mooy gont dama koy ñaanal rek mbay mm-hmm. euh, yàlla bu yaakaaram tas ci man li nga mm-hmm. xam te doom da koy defal way juram mm-hmm. yàlla naa ko ko defal te mu gën ci ñun ñëpp Euh, ci wàllu boobu nag sa wëli sa wàllu papa euh, sa papa artiste la di nekk nekk ndaanaan boo xam ne kenn du ko naataable ci Sénégal waxuma ci international mhm. euh, ana yow li nga xam ne mooy ay œuvre mhm. mooy li nga xam ne tey jii ñëpp doon nañu ko dégg ci moom mhm. est-ce que yow pare nga pour jël ci li nga xam ne moom mooy ay œuvre am présenté waat ki nga xam mooy Sénégal parce que toggaat ko waaw parce que loolu maa ko moom muy sama wayu papa muy sama wayu maam kon mm. dama doon wax naa man su ma neexoon sax bañ a fentati mm. parce que ñoom liggéeyal nañ ma loo xamante ni sagam ñeneen a koy jël di ci def loo xamante ni nii nit ñi dañ koy bëgg mm. gën yow mi nga xamante ni sëtam nga wala doomam nga man lu ma ci bëgg lu nekk dama koy jël te duma sax tàggoo parce que sama yëf la

commencé mi ngi doog door incha allah. Euh, li ma ci gën a dama dama dafa foor ci woowu béy. Mhm. Euh, laata ngay signé ki nga xam mooy contrat EDB TV bi. Mhm. dafa mel ni que mos nañ la enregistré benn morceau boo xam ne nii euh, génnagul. waa génnagul woon. Mhm. loolu nag ci lañ nekk ni incha allah kenn daal mi ngi lëlu. kon gaa yi dañ laa sentir gars yi dañ laa sentir laa sentir parce nga jëm moom. doo egg. dëgg la <laughs> mais nañ ñaan yàlla rek. bientôt. Kani Faye mi ngi ñëw ak lu bees. kon gaa yi dañ laa sentir avant. ñu signé contrat ak yow. ah voilà mu ngi noonu gars yi manager bi manager bi mooy nee nga xuus nee na nga xuus ci li nga xam que euh, Tafa mu ngi taxaw jàkkaarloog ñun te xam nga dafay bëgg aussi li comme ni nga waxee rek yenn yi nga bañ ci a xam nga rek au fond loolu loolu la bëgg te c'est très très c'est moo mën a e moom moom nga war a wax wala li nekk si yow yaa koy wax ñi nga xam ñu xamul xam waaw li may wax mooy kan mi ngi EDB TV mm-hmm. donc ñu ngi pare yu garaaw incha allah instant bii nii ñu ngi studio di pare ay affaires yu doy waar. Hmm. na ngeen xaar kani. ci hmm. yeneen ak yeneen fépp fu ngeen xalaat rek dinañ fa génn ak yéen. parce que mëne naa fu ne macha allah boo ma yóbboo ci traditionnel bi ma dem. nga hmm. yóbbu ma ci moderne ma dem. kon kay jeex na mi ngi noonu. <laughs> <laughs> Euh, voilà amis téléspectateurs de la EDB TV international yakana naa ñi nga xamni ni ñi sétane contane gene parce que artiste bu nek li lay ñaan moy que dem ba tay nga signé contrat ak label bo xamni mhm. label bu mag la comme Nico Mustapha waxe sang ci bi mhm. signature bi moy mhm. que EDB euh, e TV c'est international EDB TV dépasse dépasse na fi nga xam moy Afrique fi mu toll ni ñëpp euh, ñu ngi bayyi xel li nga xam moy EDB TV kenn ku nek tay ji am nga bëggoon nga tay ji ñi signé li nga xam moy contrat nga liggé ak parce que artiste bu nek loolu ñaan yoon bi metti na na waaye nag yaakaar naa sant yàlla ba tey yi nga signé ak li nga xam mooy EDB international yaakaar naa kon comme ni nga ko waxee rek liggéey bi day doog mhm. waaye EDB di international lépp loo xam ne war nañ ko def ci li nga xam mooy sa diggante ak ñoom mhm. yaakaar naa pare nañ ko parce que nekk nañ ay nit yoo xam ne nekkuñu ay nit yu waxkat mhm. dañuy jëf rek moo leen tax a jóg parce que yaakaar naa ne euh, ndaw ñi dañu soxla ku leen jàppale euh, le manager Mm-hmm. waa di di nuyuwaat ñi nga xamante ni jàppale nañ kan yi rek ku ci mm-hmm. mel ni sëy na Seynabou Cissé mm-hmm. sama jigéenu maam la jigéenu Njaga Mbay la depuis bi moom tamit day jàpp ci samay affaire tabara mu ndey Fatou ja xam nga ñooñu nga xamante ni dañoo jàppale kan yi te xooluñu ci dara ay setu gay sama doomu turandoo bi nekk États-Unis day jël ay greffage di ma jox di jël ay yére di ma jox te artiste moom mu rafle moom rafle daa war a sañse gisoo li nga sañse waaw mi ngi noonu nag sama caméraman wala moom li mu sañse gisoo li mu sañse gis nga mi ngi noonu <laughs> ñi nga xamante ni man moom sañse woo bu leen bu leen wane sama sañse xam nga comme que ci koor lañ nekk <laughs> bu leen wane sama sañse comme que ci koor lañ nekk kay dañuy def yëfi kii rek waaw yiwal ko tuuti waaw sellal ko mu ngi noonu euh, mais mais tey tey tey da nga am lu jafe mhm. lu toll ni weeru koor mhm. gars yi lu jafe la am lu toll ni weeru koor tey ji nga signé ci contrat vraiment lu c'est extraordinaire dëgg la macha allah dañuy ñaan yàlla rek ni mu kiyee tombeeg weer bu sell bi hmm. suñu borom tek ci loxo rek mu dem. macha allah lu ñu njëkk a mais mais lan ngay ñamal téléspectateur yi. parce que mom bari na ay bagage ah mais dama bëgg nga ñamal ci surtout sa affaire sa sa ben ben tradition quoi bo xam sa sa morso mam la wala sa wala sa morso bo xam sa morso papa la ñamal ko téléspectateur. cooli cooli léegi wu leer leer na ba noppi ana nga ni fay ñi la mbéréw mi ma doy tu léegi mu leer te leer na ba noppi. bu teen bi gaa amul baag la léegi mu leer am nga baag deel baawal gaa ñi saf la jaroo voilà amis téléspectateurs de la EDB TV international yéen a ngi seen émission la nuit des arts ñu ñëw nag teewee xam nga rek ñun moom lépp loo xam ne ni fekke nañ ko rek ah. dañuy bëgg a jox ñi nga xam ne ni ñoo ñuy bàyyi xel parce que émission la boo xam ne nii ñi koy siraan bëri ndaw ñeeg mag ñëpp koy safoo mm-hmm. kon yaakaar naa tey am nañ mbégte trop ci ñëw fekkee ci li nga xam mooy signature contrat an la mooy sa kàddu yu mujj waa sama kàddu yu mujj mooy e mm. wax dëgg yàlla mm. di ñaanal sama yaay tamit mom tamit daf ci sonu mom dafa melni moy manager bu jigen bi mm-hmm. sam papa tamit mang koy ñaanal guddu fan ak wër ba yalla def kanifay di ko mak ak bépp parent bo xam ne nga ak sa njaboot di gërëmaat ñëpp mm-hmm. di santaat ñëpp di wax di gërëm tam samay bàjjan mm-hmm. ak samay tànta ku ci melni sama jigen umu waaw umu gawlo sama yaay mang koy nuyu di ñaanal mom tamit fami gawlo ñëpp gërëm naa leen sant naa leen ak famille géwél sama ñoom bàjjan sama tante yeeg ñëpp gërëm naa leen bu baax a baax macha allah jërë ngeen jëf yéen ñi safoo EDB TV international di jaajëfal ñi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon bi mhm. ku ci mel euh, euh, tonton Mbaye Guèye euh, mhm. ak ki nga xam ne ni mooy héros ak Tafa Daabu ak Moustapha Ndiaye ak ki nga xam ne ni mooy Chimère mhm. Chimère moo ne ci caméra bi ama gauche Moustapha nekk ama droite maa ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne mooy téléspectateurs yi safoo saa su nekk EDB TV international di jaajëfal techniciens yi ak ñi nga xam ne e moom mooy ñi liggéey ci EDB TV moom mooy parcelle ki nga xam ne mooy euh, Kanifay mm-hmm. ak ki nga xam mooy Tafa Dabo di manager am mm-hmm. def nañ signature bi nag kon nag sénégalais yi aduna bi xaar leen ki nga xam ne ni moom moo di Kanifay ak mm-hmm. EDB TV national du yomb gaay bra